bopp ñoo ngi leen di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñun nag ñoo ngi ñaawlu li am fii ci marché Ocass dañ koy ñaawlu maanaam ko ñaawlu rek duñ ay julli duñ ay gor parce que lu dooloog ay junniy personne yoo xam ne fii la ñuy teg nit ki boo koy yàqal sax da nga ko nekk dem ñëwal nga jël sa bagage waaye dañoo ñëw rek dal ci kaw nit ñi rajaxe lépp yàq lépp lii bu ndigal ndigal ndigal moo xam nga dégg xam nga nee nan waaru suba dañoo réew waaru suba nangam fii ñii liggéey di joxe ak liggéey fi nekk dàq leen a joxe ci kër sëñ bi gën leen a leen a jëfi ndigal gis ne lii nii liñ liñ liñ yaakaaroon ak jëflante ko ak ñun ñun duñ fi ne di xeex duñ fi ne di xuloo ndigalul sëñ bi rek waaye tey ji waroon na noo mën a jug nañu nangam ñun ñu jël suñu bagage ñëw rek yor seen i lii di dóor loolu bu du woon a ndigal dana demee na neen dana demee na neen wallaahi asim parce que lii dafa met Touba amul usine amul dara Touba ñaara fi am képp ku jige daara ja sareet ngay dawali wala nga ñëw ci marché bi ak ku man di doon amul usine amul dara kon léegi marché la nam marché la nam léegi bu ñu fi jëlee marché bi nii lu tolloog junniy personne ñu yàqal leen ci 30 minutes 30 minutes ah nga yàqal leen léegi fan lañ jëm léegi xanaa loolu mooy damay toroxal ndaw yi Touba yi loolu mooy lan lii mooy lan ah am na ñoo xam ne dañoo lakkale barki démb amatul balaas kenn dimbaliwu leen ah li am nan koy wax dëgg dëgg dëgg li am nan koy wax dëgg dëgg dañoo war a jàppale ndaw yi Touba ñooy liggéey di joxe addiye ci dëkk bi fu sëñ bi wootee ñoom lañ njëkk a gis waaye gis lii lii lii daa mel ne dañ ñoo toroxal parce que tey ji képp ku xëy si amoo loo def da ngay ñëw taxaw da ngay ñëw taxaw wallaahi laasim am na ñoo xam ne maanaam maanaam sëkk di jooy sax gis naa ñu def lii dafa metti dafa metti lii dafa metti torop ñun nag dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu ni ñu ko yàqee nii ndigalu sëñ bi moom jëfee waaye ni ñu ko yàqee nii dañ koy ñaawlu parce que ñoom ànd ñu kenn ku leen jiitu dañoo tourné rek doon seen ful yor seen bant di dóor te buñ jëflante woon ñoo nag day doon na neen waaye tamit ñun dañ ne ndigal dañuy toog rek buñ ko doon yàq ñun ba ñuy juddu andiwun dara buñ ko doon bu ñu yàqoon lépp ba amatuñ dara dañu dañ dañuy dem defi nan defoon parce que yàlla jeexul yàlla ngi fépp waaye lii dañ koy ñaaw en tant que ñu dëkk ci biir Touba ñu def leen nii wallaahi laasim lu ñaaw la wallaahi laasim